jóg nañu taxaw téye ko léegi nag maam adulte yi ci la ñuy commencé ndeysaan Fatou Anta Doumbouya gis naa ko fi léegi mu tiim maal xam naa ah noonu xam naa tiim na maal xelam dem ci Cheikh Diop waaye xelam dem ci biddéew bu mu jaayoon ndar ba pare tegale une semaine bis bu ne mu xëyee seeti ko waaw. <laughs> De combats on démarre par les femelles on démarre par les femelles nous on femelles yi ñu À galop tout est sur place en direct la télé

Père Sangomar nee na ma maa sooloo ndeysaan ay ca tey nga gis noonu ñu ngi jàkkaarloog réseaux sociaux yi di leen ziar di leen kontaane jël néew bi teg ko ci grand lay saar mu sédd leen ma leen ko waaye télé bu mag bi télé bu russe bi seen galaw ñoom ñoo koy direct macha allah di wax ni liggéey bi am na solo. boog suñu waxu 44. mu ngi garde la vérité di wane boppam bon suñu waxoon quarante quatre génn na actuellement bon suñu waxoon quarante cinq macha allah box li ma ko gànnaay bi tey moo nekk daal de la liggéey fas yéene wone boppam fas yéene jàkkaarloo waaye nag xale bu mën a joué maa ko yor muy maa law. xamal aussi mooy xar mu am fulla la fi indi xar yëpp dañuy ñëw capax capax capax moom bi mu ñëwee ba léegi boo ko xoolee xam ne même ni muy tourné di jëm ci xibla yi. day am mu koy natteegoog femelle bi ak teg bi ci digg ginnaawam bi vraiment rafet na macha allah ah xar dayoo xar melokan vraiment xar esthétique tubarkalla mais booy xar mi xar la ci xar yi waaye nag ku ñu xalaat ak indi ci ko. déggul sama naar yëkkati na ko déglu ci kii tubarkalla allah. waaw ah. waaye nag yaakaar naa ni tey moom ku ñu ni yaa gañe fii di nga xar moo nga xam ne kenn duñ la fàtte Sénégal gis naa concours bu ne waaye maal yii daje tey ak femelle yii daje tey c'est la bonne qualité c'est la bonne qualité ma bàyyi la rek nga doxal kii mooy box numéro 46 après dox.

jàkkaarloog li nga xamante ni moom mooy les membres du jury jàkkaarloog sama mbokku réseaux sociaux yi waaye jàkkaarloog ñi nga xamante ni ñoom ñooy seen galon télé gox bi télé askan bi ñoom ñu koy def direct nga xamante ni fooy mën a nekk ci àdduna dara réew la ci foire bi waaw suñu moo nekk ci

organisé fas yéene wane boppam mu ngi jóge box su numéro 14. ay jege gis ko mu ngi jóge box su numéro 14 dugg carte de la vérité fas yéene e boppam jàkkaarloo na ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa penku pour ne jàkkaarloo mu wax soow mu ngi wane boppam nga gis ko actuellement. mu ngi jàkkaarloog les membres du jury mais mu xaar ñu gën xam ci gaynde nee na na xam ni wëndeelu su ko defee ñu xool côté yëpp xool kanam gi xool ginnaaw gi bu fas yéene nekk concours bu serré maa jël sama gox loolu rek rëy na titre lay première édition nga gis ni actuellement kilifa yi ci élevage ñëpp génn nañu ñëw tey catégorie maam adulte nga gis tey maa ngi ran nga xamante ni tey fii maa jël pay deux ba cinq képp ku ko jël dama ne ku ñu woo deuxième tour rek démérité woo ku ñu woo deuxième tour démérité woo parce que tey ku xool lii xamante ni maa ngi ñi doon jooy maam maam élevage bi dafa manqué maam éleveurs yi ku leen gis ak nawet bi ñu génn liggéey nawet ni mu mittee kon gis ngeen ni éleveurs yi ay jàmbaar lañu macha allah ñu bëgg rek yéen éleveurs yi ngeen tàccuwaat seen bopp bu baax a baax a baax a baax. ñu demee léegi naa perte ma oo. forme symétrie xar bu rafet.

ne xar boo nga xam ne gis nga nag booy fii ku fi qualifié rek man ñaan naa la teg kon waaw waxuma nag ki gagné ku qualifié rek sama femelle bi gën laa lay kon fii ñi qualifié ñëpp démérité wuñu tabaarkalla macha allah. Habib moo ko défilé Habib rek am na lu moo wax ak man nee na suba ci dimanche bi ay Habib bu suba am na. oh waaye booy séeréer nekk si na ci réew corne yi booy séeréer teg ni ko ñi ma doon gis booy séeréer daal déeboo rek xool xar mi booy séeréer nekk si na ci réew mi day saan tubarkalla macha allah tubarkalla macha allah ci njëkk a yéeg dina fi auteur dëggantaan waaye xar yaa ngi ñëw rek ku nekk ku ñëw ak la ngay indaale oh <laughs> booy bi booy bi gis nga booy bi day mocc booy bi day mocc booy moccal ma ko <laughs> macha ma ngay mocc ma koy mocc xar maa ngi wër topp ko dafa bëgg jury bi gis ko te yëpp mu ngi liggéey liggéey bu rëy. tubarkalla macha allah ci teewaayu di jëmbay moo dugal xalam kooku di leen bëggee eh. waaw concours bi de moom concours bi daal xam naa ni ko tër moo war a yéeg ci podium bi booy bi tourné na ko ànd naag moom lëng na ko téye na ko ci put gi xar maa ngi ko topp indi na ko ci kaas bi yër na buntu ba dugg na ca biir Samba Naar tëj na ko wàllum la ca bind ba rek la ñëpp di yem maa la ko wax wàllum ca bind ba kii mooy box numéro 46 moo nekk noonu ci kaw. o oh, jury bi tey am ngeen liggéey bu réeréer jury bi tey am ngeen liggéey bu réeréer oh vraiment boote am na boote am na ci mâle am na ci femelle yi macha allah eh eh bu ñu béy ci de bu jéem a tëb aussi de la arrangé ah. maanaam moo taxit nag yëkkati leen tànk bi ba nar a fecc xaw ma nar a tëb wala booy bi ni xel yëpp dellu ci sibéeru xel yëpp dellu ci all black all black doomu sibéeru la oh maa ngi nuyu jibi tànn yi l'homme de confiance des Gambiens. mais nee naa la Gambien yi mën nañu jël milliard dégg ko Djibi Kandji Djibi Kandji moo wóor je <laughs> te le jure la ma sama papa yendee woon na dama ñëw Ndakaaru fekk mu koy sàmm ni ma ko la dara dina lekk dërëm boobu ma ñëw yow fekk looloo tax yàlla boole ñu. <laughs> ah xale bi melas takku na ay waay robe noir waay oh xar daal taar xar daal dayo xar daal borom moom fas a xar ak jokkoma ku la ci gën borom rek moo la maa la ko wax dafa am gaa yoo nga xam ne ni ñuy defaree xar yi ni box numéro 57 box numéro 57 waaw Mor jigéen dafa sëyi Mor ma benn jigéen dafa sëyi woon yeewu fajar dugg ci ba nag bi ni sakku bi mu demee mu fekk fa xar yi ak façon yooy mu daal di ñëw ni bàjjenam bi ko indi woon man dama lu defee yaa ko fiy jëkkee mu ne ko bàjjen xar yi ma gis fii ci wanag wi ak fas wi bu ma fi toogee ne lay mel ma <laughs> tax ku am sa jur wi xaw yoral mu rafet oh xar mi rafet na non jiri bi nag lii moom bu ngeen ko àttee ma xam ni yéen yéen a fi man lii <laughs> Yidu yambu ne Du masa yambu Maniko du masa yambu lala Su garantis 678 Boxo 57 5,94 Boxo 29 7,433 ay jama sàllaa ngeen gis ko noonu ba tey ci boobu la jamono ci la résultat yi daal di génnee. deuxième bi nag ay critères additionnels mooy dañu xool bopp xar bi nan la mel béjjén xar yi nan la mel euh, li nga xam ne mooy jenn bi ñu xool li nga xam mooy jëri jëri nan la a xool beneen beneen mbir la premier tour nag quatre-vingt-dix pour cent moom lay représenté deuxième tour dix pour cent kon loolu mooy différence kon bu defee ñu xam ne noonu dañu àttee kon pour bañ a guddal lool ñu guddi ñu jéem a jaar si ñu jaay incha allah. yan la ñuy njëkkee femelle adulte defe la ñuy démarrer de. la cinquième place. D'où nous vient la cinquième place Boxe numéro 69, la cinquième place du Djogé, Natarongi Nibisco. Oui, t'as que l'encoyer, n'yep, bok deuxième tour, bok du concours, ni, il faisait, elle faisait plus de 10, t'es une petite année 6, 6, je vais vous tenir à mon salon. La quatrième place, La quatrième place nous vient de, doit nous venir de Wara Djogé Boxman. Hein? La quatrième place. Box numéro 9. Box numéro 9, la quatrième place qui Box numéro 9. oh mooy xar yu yu yu ñu ma gisoon kenn yu su teeloo waaye ñibbi ci ku bëgg xar ñibbi ci xale bu goree kooku mooy Ameth Mbaye transfert bu siiw fii ci Sénégal xar mi la valeur am toll noonu. Doudou Vier la quatrième la troisième place docteur Cissé. box numéro 44. box mooy troisième place. troisième place box numéro toog oh, Birane Ndeye mi ngi ñu kër moom bi ak a bëgg xar léegi nag ñu wàcc ci li nga xam ni mooy la deuxième place ci ban box la war a jógee docteur Cissé. box numéro 5. box numéro 5 mooy la deuxième place. box numéro box ah léegi nag. cippaandaw ja ci femelle adulte mu réew dem kenn waxi mag dem dañ taali la première place nous vient de box numéro 45 box numéro 45 macha allah ween yaa ko ko ak yeneen ak yeneen box numéro 45 oui ji bi yàlla ma sikkul woon sax nga yéree <laughs> macha allah monsieur Papa Yande waaw tubaarkàlla non vraiment euh, c'est la logique c'est la logique vraiment nous félicitons le jury Après bu logique ngeen di def ba ngeen teewee fii ba léegi lépp lu ngeen teg ci kanamu éleveurs yi contesté du ci am kon ñu ngi leen di félicité di leen ñaanal yàlla jàmm ak vraiment ce mot de la paix pour les femelles voilà amul voilà ñu xaar ñu dem ci Mali Nous sommes nag ñu Mali Mali la cinquième place nous vient de box numéro 57 box numéro 57 box numéro 57 moi, la cinquième place ni Masha'Allah. sha allah bok ci oh là là ah c'est... Eh, imam Lo maa ngi imam Lo je oui mon ami mon frère il est de la RTS waré fi dëj la quatrième place nous vient de. box numéro 29. box numéro 29. box numéro 29. anamu. jaaral ci sama ginnaaw. <laughs> mooy bii dukkat moo ko yor quoi amit ak nga bëri tiiter sant kii nag boole <laughs> ko gis nga buy défile xar day mel ni ko yor kaat kaatam quoi ami ba goog gis nga ko <laughs> aj na mbagg yi Moi, troisième place Moi, quatrième place voilà donc on est à la troisième place d'où nous vient la troisième place box numéro 46 box numéro 46 troisième place macha allah c'est tout grand <laughs> léegi rek eh, soxna sang koy tagg grand rang la ni ko Malick grand rang magistrat Cheikh Diop Mouride Daouda <laughs> macha allah euh, docteur on est à la deuxième place d'où nous la deuxième place. box numéro 14. la deuxième place. la deuxième place ah La deuxième place nous vient de Loum Nous vient de... Oh, Harmangi <laughs> c'est tout Mozart là. Et la on à la première place. Ban xar Gelrao Gatougi, raw Har. docteur Cissé la première place. Box numéro 45, la première place. Oh, il faut taxaw ni commentaire bi loolu Mor Mor ñëwal ci commentaire yi. Allez loo daara Jolof. Ah, ndeysaan. Kii mooy doomu Mafou Sey. wax léegi. Ah oui, Mafou Sey aussi c'est c'est oui ñoo yam kay tubarkàlla macha allah moo juddalu seen maam moom bii moo juddalu maamu xar yi ndeysaan waaye sàcc la loolu waaye tàggu leen loolu waay waaw waa jaajëfal waay waay sama daan naa lu wóor lu mu daan koo dundee waay félicitation waay félicitation waay ay mais fan nga dugg allo